naan bi kum waa yeewi askan wi fañ doon bañ ne daakooruñu ci benn nit dajale ñaari poste maanaam cumul mandat tey nag le quotidien yéen a kaay na leen la ngeen doon xeex yéen ko nar a def yaaw seetal Barthélemy Diaz maire Ndakaaru ba pare nar a nekk député naka noonu Ahmed Aïdara maire bu Guédiawaye fa nar a nekk tamit député Birame Souleye ba ca Baara Gaye ak Omar Cissé léegi nag Sénégal yaa ngi xool nu ngeen nar a def ndax fa ngeen di boole ñaari poste ya wala boog fa ngeen di démissionné ca benn ba lan ngeen ci nar a def tribune yéene kaay na ko faala ci yokkal Karim Wade ak Khalifa Sall bi ñuy ruumandaat naan Macky Sall fa leen di baxal ngir ñu mën a nekk candidat 2024 jàkkaarloo Ousmane Sonko yéene kaay bi nee na Khalifa Sall ak Karim Wade pour ñu bokk 2024 affaire bi leer gudde li leer laas yéene kaay ba mu wax ñu ko mooy njaboot ak PDS gi ñu wax na fa ñuy dajaloo nekkaat benn ñëpp dajee nañ ba mu des Ablaye Wade ak waa këram Vox Populi na ko voilà faa lay Lamine moo ko wax kon ñuy wax naan wallu fay bàyyi yeew yi dem fekki bennoog waxu caaxaan-caaxaan la ñun suñ lëkkaloo bi ak yeew yi parawuñ koo bàyyi sax kon na seen xel dal li Pape Diop nag def mooy fekki benn bokk yaakaar Mamadou Lamine Thiam nee na su ngeen fàttali ko fa mel ni rek la responsable PDC defoon ci jamono ji Ablaye Wade daanoo rek ñëpp fa ñoo daw fekki Macky Sall ngir waa CREA yi buñ leen oo laaj leen seen alal ji fu ngeen ko jëlee ndax njàmbaar nag gi Karim Wade am njàmbaar googu e kaay topp di wàllu alalam géeg luubal ak yeneen yi ni mel vox populi na ko faala ci yokkal jaafara saaxo moo topp te man d'accorduma ci moo tax man deew ma benn bokk des ci kujje gi ndax loolu lañ wax sénégalais ba tax ñu woteel ñu yéen kaay bi mel ni gis-gis bañ a nekkoon ci listam ba ña koy bàyyi wan ko ginnaaw ndax li mu def d'accorduñ ci fa war sénégalais Ibrahima Sène bu PIT na leen hé gis ngeen Pape Diop mii fa sowe réew mi laa wax ak suñ démocratie li mu def baax na ma ko waxee ca teral yéen kaay direct news na ko ki ma ki war a teral kay mooy Omar bu Dagana fukki commune yeeg benn yëpp yàlla moom a tax benn bokk yaakaar fa faa xam ndam yéene kaay bi mel ni ku naan kon Omar Sarr kay moo sowe bennoo info yéene kaay mel ni ku naan ko sowe bu ndaw rek de ndax li tax ñu naan sowe dëgg-dëgg Omar Sarr ak kudul moom kenn mënu ci dara te mooy benn bokk yaakaar fa nar a tas yow seetal wote local yi maire yi xaw tuuti ko noon ñu benn bokk yaakaar fañ leen mbuqi ba ñu bëgg dee ci diiwaan yu bëri xam nga loolu ñaawoon na léegi wote député yi a ñaaw nag fañ leen a na mooy PS yi fañ leen a wan ginnaaw presque xamatuñ militant ñu leen a rey APR moom faa ko jëlale a yow doo seet benn bokk yaakaar këru diine yi fañ leen faa mbuqi dóor bañ tëdd enquête yi ne kaay dëggal ko ne neexute dégg waaye benn bokk yaakaar fay leen a wax fañ leen a suur doyal moo tax wote yu ñëw rek mbuq yi gën a ñaaw info yéen kaay mel ni ku naan ndeke daal loo gis dafay jeex pourtant benn bokk yaakaar fukkaat ñu ngi ànd ak Macky Sall di dóor gaay rek waaye léegi seen nguur jeex na wal fajri yéen na ko seen kilifa gi nag Macky si boppam foogule ne moomin nguuram aw na yoonu jeex ndax fi mu toll ni fa échec assemblée nationale bële majorité bii mu am dalul xel de man ma dal ci vox populi fekk fa waa aar Sénégal nee ñoom fa ñuy des nekk ci kujje gi ba pare nag Thierno Alassane Sall ne ñun fa ñuy xeex ñetteelu mandat Macky Sall du ko fi amee waru koo laaj te ko fi amee Thierno Bokum feelu ko ko man daal li ma métti mooy ñun gaañi fa ñoo yàq suñ der a xool suñ jaar-jaar léeg si ko yéene duñ dem su ngeen àndut ak Macky kay fa ngeen di dem fa ngeen bokk muy ku jégi ànd ak ñoom su ngeen ko defut nag fay mel ni yéen Macky ngeen liggéeyal Pape Djibril ak Thierno Alassane Sall mel ni ku leen di tontu na hëy li ngeen wax noonu waxu caaxaan-caaxaan la ñun xam nga nu ñuy def non inscrit ànduñu kenn fa ñuy toog jàpp suñu jàmbur xanaa ay wax day jeex Abdoul Mbaye na leen déedéet wax ji mënta jeex de fi mu toll ni sénégalais yi xam nga lu ñuy sàkk anam gu baax te fa ñuy fàttali Macky Sall na ko 2012 fee dindi woon Sénat ndax fa waxoon ne mbënd mi moo amoon ci réew mi waa léegi ren 2022 mi kay ni mel Dakar musu koo mel ñu am tamit jafe-jafe xaalis kon kay loolu fa war tax Macky Sall jëlee fi dindi au conseil ak yeneen yi ni mel conseil économique ndax ren la gën a jaadu di leer la leer ba mel ni jant tu su baar mooy ne conseil constitutionnel fi mu toll ni amatul njiit ka leen jiite woon Pape Oumar Sakho fa à la traité ba tax si du quotidien la fi defoon at yi réew mi beneen coow bu amoon Sénégal muy faatuk François Mancabou ca loxo takk der ya les si que kaay nee na complément autopsie ba dootuñ ko mujj def enquête yéen a kaay dëggal ko na ko beneen contre expertise dootuñ ko def néew ba jébbal nañ ko ay mbokkam te talaata bi lañ koy jébbal boromam leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ña feebar nekkoon hôpital la Dantec doon faju seen bakkan a nga ca xottu gerte de boo moytuut fa ñuy dee ndax na fañ leen di yóbbu faneen te li ni fas yéene amal toogaanu ñaxtu génne mbooloo mu bëri fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ut wii ngir ñaawlu la am ci hôpital Le Dantec lu mësta am fa ñaaw ba ca kanam yàlla lii yéene na ko waa SOS consommateur ne fa ñuy porte plainte docteur Mansour Diouf njiital hôpital ba ne bàyyi leen wàllu politique bi ngeen dugal ci yëf yi liggéeykat yaak ña feebar mel ni ku ko li ngeen def nii fa ñaaw leneen lu ñaaw mooy nekk nu askan wa ca Kër Massar mi ndox ba mbënd mi ba léegi seen kër yaa ngay tëmb ña nekk ci ay jafe-jafe nekk ca zone de xamal ne société bi yor wàllu exploitation terre bi mooy saxaar gi gaaw gi farara bi coow juddooti na fa ndax direction ba gars yi ne neen fa deraaye ay mbir yu doy waar ñoo fa xam tàggat yaram Chelsea Tottenham derby Kalidou Koulibaly ña ngi ko cee xaar Espagne it door nañ championnat ba Real Barça ñëpp a ngi xaar nu ñuy def de Ballon d'Or France Sadio Mané bokk na ca ñi koy xëccoo ma nga ci juróom benneelu place ba nekk ca kanam Salah Edouard Mendy a aay ba di ko def mooy yàq xaalis ci ay mi toll bés bi yéene kaay ne Sénégal wut kon fa ñoo war di denc bàyyi yàq gi ab jàngalekat ci biir yéene kaay bi mais man de faa leb ay boro boro bor ci banque bi ba ci sama dox benn soxna buy jaay reer ne man faa bokk ci ay natt yu bëri ngir mën cee génn ndey awa géy ne sénégalais yi dee leen denc sakkanal yàq fa xewi de libération moom jox kàddu xadijatu rasul géy di liggéey ca centre bay dalal xale jigéen yi nga xam ne fañ leen a wiyole Ziguinchor ma ngay nettali ne nag jëf ji nga xam ne du ko gaaw a fàttee mooy li daloon xale bu jigéen bi ñuy wax Michel Dieng yaw jëkkëru tàntam moo ko doon violé ca kër ga mujj ji wann ko lor ndeysaan bi mu demee bay am doom ju ci la mujjee ñàkk bakkanam moom xale bu jigéen ba te ndeysaan jàmbaar la woon amoon ay projet bokkoon na ci bëggoon a dimbale ay waajuram ya nekk ca diwaanu ndar waaye gis nga ko jëkkëru tàntam wuyela na ko ëmbuloo ko muy xam doom mujj faatu ana lu gën a métti li